mbokk yi ñu ngi leen ko doon waxee saa su ne championnat populaire euh, nawetaan mi gën kaa xam si nawetaan euh, xombal ñu ngi si sunu troisième euh, journée mu amoon benn match boo xam ne moo doon dox si diggante ki ne mooy Manko ak ki nga xam ne mooy Déggoo mais li nga gis mooy Manko moo ko daan benn bal si dara ñu gis la capitaine de AC Manko muy Serigne Fallou Mbacke Ndiaye mi ngi nii taxaw Serigne Fallou nan ngeen commencé match bi ak nan ngeen ko waajee côté Déggoo. waaw waaw sant yàlla rek salaamaaleykum maa ngi nuyu waa xombal gi yëpp di leen siyaar di leen baalu àq. waaw comme ni ñu war a commencé yeneen match yi rek noonu lañ ko commencé entraîner waaw waajal match yi après ñu ñëw football li suivre instruction surtout yi ñu exiger pour ñu def ko waaw. ngeen nekk seen première sortie ngeen am 3 points lan la def si yéen. waaw sant yàlla rek sant yàlla xam ne ren dañ am engagement bu baax ak détermination parce que yàgg na coupe wala bànneex bu bu neex a neex dugg si koñ ba. suñ sañon ren mu dugg ci waaw lool la tax ñu football ak beaucoup de détermination rek. prochain match bi lan ngay indi ak lan ma ak lan moy sa wax ci bakkan bi. waaw comme niñ préparer yenen match yi rek non lañ koy préparer ñew jema jël 3 points su dëgëree ba dëgër ñu jema wut ben point parce que poule de 4 la te ñaar ñoy ñooy génn. jërëjëf mbokk yi mo la la ci manko di Serigne Fallou Ndiaye ne woon leen ko match tourna bi deux match la woon diggante espoir ak xay gi mais dafa rapporter ndax sa côté xay gi dafa am ben na match boobu mais deuxième match bi mënoon dox si diggante nga xam ne mooy manko ak ko si fair ki nga xam ne mooy AC manko gan ki nga xam ne mooy AC déggu benn bal si dara ki ko dugal di suñu Fallou si deux deux ak Fallou Ndiaye defe naa kon euh, man ñu ngi koy wax nga xam ne mooy xomba point su ne ak ñun dinañ jox ay xibaar yu